mi buur bi fayaa kon santuk lam xol ak santuk làmmiñ di sàkk ci moom ndimbal di sàkk ci moom njëggal ci bàkkaar boo xam ne def nanu ko moo xam bu ñu tey la walla buñ juum la walla bu fàtte la ñoo ngi seere ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma di ab yonentam te mooy ngën di teddi bani àddanaam yépp am na ah, ñoo ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu sàkkoo leeral tuuti ci li nga xam ne wax nañ ko ci xutba bi ndax sëriñ bi dafa sàkku ñu di ko leeral ndax dafa yéene ñëpp njariñ yéene yëpp ndimbal kon mu ngi guddeeg bëccëg yaari waruwaay la yoo xam ne yi ñoo nu yóbbu ëllëg te kanam suñ boroom kii woote nag jëm ëllëg mi ngi woote doonte dañuy nelaw mbaa saggan ngi woote nan ko waajal nañu waajal weer yi nga xam ne ci lañu nekk ci yaatal ak teral te taxaw ca mboolem li nga xam ne moon war ci màggal ak yaatal ñu sellal suñuy jëf ngir jëmm yàlla weer wi nag am na fukki fan yoo xam ne sun boroom da ko cee ràññale mu bokk ci fan yi nga xam ne mu ko gënal ci àdduna mboole seen ci bisi àdduna yi dafa fees dell ak i nganeel ak i yiw nañ ko dundal ci topp yàlla ndax moo nuy may nganeel yooyu ñu jot jële nañ ci ku jëli ci yonent bi mu wax ne isaara bu ngeen gisee weeru silhijja ku ci yorum tabaski te bëgg koo rend ci te bis ba bu weer wi teroo na nga téye sa kawar ak say we boo demee ba rendi ba noppi nag loo yittewoo ci watu walla lawi ko nga def ko kon nan bokk xam nañ li nu yàlla xammi mal nañ foog loon teg yàlla mi nga xam ne dara du ko fat fat dara du fàddu fi kanamam lu ni fépp aw sànq aw sànq lañ sax bu toxoo fii jëm fee yàlla xam na ko yàlla ñu yàlla jariñ ci alquranul karim ci dégg ko ak jëfe ko mais ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeru na yonent bi moo di yonentam moo ngi dellu di fàttali jaami yàlla yi lañu jële jëlee ci ku jëlee ci yonent bi mu wax na amul yenn bis yu gën a tedd fa yàlla ñu war ko ca jaamu yu ëpp doole fukki fan si lija ginnaaw weeru koor ndax woor benn bis ci bis yi nga xam ne mooy fukki fan yi dafa tollook ci tuyaaba yoor wooru taxaw ci ak guddi julli ci jaa ay ràkk ngir jaamoo ko yàlla dara jaamaa ngi mel ni nga def ko ci guddi gu mel ni laylatul qadar jële nañ ci ku jëli ci yonent bi mu yonent bi sallallahu alayhi amul yenn bis yu gënal yàlla mu jëfal ko ci bis yi di fukki fan yi kon nañ ci bari suñuy tudd yàlla ak suñuy sikkar nee na woor ci benn bis dafay tolloog woor woor atum daaw ak atum ren ak ñi jëm jëf ca jëf ju baax suñ boroom nee na dana la ko fëlal juróom ñaar fukki yoon tam jublu bari te jublu limba ndax yàlla ëpp na loolu jëleen nañ ci yonent bi mu wax ne woor bisu arafa day far bàkkaar yi ren ak daaw ak jëm waxoon nañ ko kon nañ bokk farlu te jëkkante yiw yi nekk ci fukki fan yi te bari ñaan ci yow mu arafata ndax mi ngi ñëw ñaan am na ngëneel yu mag imaam Maalik wax na jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu jële ko mu jële ko ci ñu jële ci moom yonent bi nee na afdalu duaai duaau yowmi arafata wa afdalu ma qultuhu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa alhamdu ala kulli shay'in qadir nee na samay wax ak la wax yonent yonent yi mu jiitu woon waxoon la ca gën bisu arafa bu dikkee nga di ca wax laa ilaha illallah waxdahu laa sharika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir xamdan liman akmala yowma arafa gis naa sëñ bi bind ko ci kon nag laa ilaha illallah waxdahu laa sharika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir yomb na bu bisu arafa dikkee ñu di ko bari la wax ngeen ngir am yool ak ngëneel yum làmboo yaxfirullahu lana wa lakum wa li jamiil muslimiin